am na groupe Andala Buri ñoo indi soq soq moom lépp bio la maanaam ay plante naturelle la ñu boole soq moo lay dimbali ci lépp loo xam ne da di hémorroïde bu nëbbu ak bu feeñ soq day dimbali góor tamit mu gën a am doole soq ay plante naturelle la yu lay dimbali ci prostate di yombal circulation sa deret ba noppi di setal sa deret day jox ko góor ki doole ju bari doole ju baree baree baree baree baree bare day dindi fatiguement général te lépp luy jafe-jafe góor ci xaaju guddi da koy dindi kër gi gën a neex lool café ci ndox mu tàng trois fois par semaine balaa ngay tëdd nga naan ko dégg jàmm wooteel ñu livré la en toute discrétion 78 598 06 06 77 372 96 96 ay plantes naturelles bio laa la wax de soq 50 000 francs lay jar. sama copain borom àndalaa buri <laughs> borom doy waar borom rigo. <laughs> soq maa ngi nii ñëwaat ci réew mi lii nga def tey laal sa maran wóor na Seydina Limaamu xoolal Fadoog moo ko ñëw ñëwkat bu mag bi te yaru nante Sénégal da di réewu teraanga fii fii réewum fitna la jëwante kasante ku mën sa morom duma rongañu baadoola yi di siim cerey buur yi Amérique neexoon gisoo ni ma mel ma fi amee une semaine ñaaw na ci yéen la waaw sama sëriñ rek sa sëriñ comme d'habitude rek yow miin nga sa sëriñ ci man ab lay waaw waaw mhm. waaw yàlla ñu boole moom nga xam maa damay damay damay xaar nga noppalu mhm. ma jël sama temps jël xool valise yeeg yooyu noonu lu ma ci mën a lu la neex jël lu ma lu ma ci mën a làqal lu neex jël mais am na solo nag tey wax dëgg yàlla ñu am mbégte jàkkaarloo waat ak yow sa kër wala sama kër laa ñëw people 221 euh, dama lay bàyyi nga nuyoo téléspectateurs yi lay suivre ñu doog a ñëw ci waxtaan bi parce que nag askan wi namoon nañ la wax dëgg yàlla. ma raw leen sëriñu nandite yaa ngi nii. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi ñaanal jàmm képp ku ma ko yéene di ñaan yàlla daggal ma ndiggal képp ku ma yéenewul lu dul jàmm yàlla teg leen feebar na toog jafe-jafe bañ tal seen bopp te buñ matal maa ngi sukkandiku ci barke faatihatul kitaab ayatu kursi yu lixlaas li tax ñu wàcceek kook ca kañ ko wàcceek leer ya ca yàlla nangul ma ñaan gi képp ku ma bañ bul am jàmm ay ca am na solo Cheikh bi yaakaar naa fi may jëkkee euh, bi nga fiy jógee keroog euh, wax dëgg yàlla nga jóge fi ci domaine boo xamante ne nii wax dëgg yàlla euh, jaaxaloon ñu bari am ay kàddu yoo xam ne nii da nga ko yëkkati woon jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy ñoo di réew mi wala ñoo di ñoo ñoo di askan wi doon kàddu yoo xam ne ni da nga koo génnee mu yëkkati laal umma islaam ba waa Jamra génn ñu bari nii Cheikh Ahmed looloo tax mu daw tey daw bi nga dawoon génn gàddaay dem Mali Burkina fu ne nga dugg fa xeetu daw yooyu noonu wala la waraloon nga dem tamit mën nga ci ñëwalaat pour nit ñi mën a fàttalikuwaat sujet bi aussi. waa li waraloon ma dem du dara lu mooy jaamu yàlla boo xam ne ku bëgg nit ñi jëriñu la di def itte yu bari pour jëriñ jaam ñi lii dal doomu aadama yépp dal ko mooy njuumtey làmmiñ mu yëkkati kàddu yoo xam ne teg ko ci alxuraan ku xam dëgg xam nga ne kàddu yooyu du dëgg ku bëgg lu rafet xam nga ne rafetul képp ku ma sopp it danga may yërëm waaye doomu ma saaga ndax reewaange gu yegg ba ci alxuraan wala xamadi gu yegg ba ci alxuraan loolu nattu rek la mm-hmm. muy lu ma métti métti su may soppi ma jéggalu yàlla suma borom ci ñetti sartaay tuub bi mais xam nga lan moo tax xam nga foo seex bi seex bi foofu dinaa la dog parce que tey euh, d'accord naa nga def benn affaire euh, jéggalu ñu jéggal la mais yow boo xoolee dañ fi njëkkoon a dugg ci ay affaire préservatif wax fi ay gros mots xam nga nga amoon ci nga nga amoon ci dog-dog ñu jàppoon la ci nga génnaat répété waat même mot est-ce que bu yàggee tamit yow nekkul da ngay salfaa da ngay salfaañe diine ji wala da nga ñëw pour fawee diine ji wala lan mooy problème bi parce que loo def defaat ko si tamit après dama naan lii tayef la. Euh, bul fàtte ku wax li mu war a wax nit ñi comprendre luñ ko tëj ko ci kaso den koo tooñ mbiru protège yi rëccuwuma ko jéggaluwuma te li ma waxoon démb laa waxaat tey. yonantu sallallahu alayka wa sallama ci biir jumaa ji la daan jàngalee góor ñi nu ñuy sëye jàngal leen buñ sëyee it ba sperme génn nan la ñuy sangoo farata su diina demee nag ba jullit ñi ragalatuñoo njaalo ba ragalatuñoo tëdd jabari jàmbur feebar yi di law am jigéen ñu innocent ñoo xam ne dañu toog fa ñuy sëy seen jëkkër di fo ba wàll leen feebar xam-xam may ñu ñu defar protect c'était pas pour njaalo protect lenn képp la mooy kaay nga sëy ci kaw kaaraange sëy ci kaaraange mooy protect ma ne neen jëfandikoo protect yi sëy te musal suñu bopp ci jàngoro ñoom ñu interprété ko ne dama ne kaay leen jàllo waxuma loolu boobu rëccuwuma ko te du njuumte Sénégal ñoo ma tooñ justice bi ñoo ma tooñ ndax dafa am lu ko jiitu ci suma àq ñu agressé sama kaw la ma porte plainte ñu toog di xool maam Makhtar Gueye plainte ñu jël ma tëj ma ñetti weer yàq suma business te maa ngi employé fukki nit ak ñaar gàddu ay dépenses yor suma mm-hmm. dara di dund suma dund ñu yóbbu ma ci loolu ba pare tëj ma ci yaanoon góor jigéen ñi félicitation tëj ma ci yaanoon damay nàmp damay yéeg ci xale yi ñetti weer bi ma pare mm-hmm. yóbbuwuñ ma ci kanami juge bi àtte àttewuñ ma den ma ne rek kaay ma dugg ci benn biro ñu ne ma payi wóoluwuñ sa làmmiñ boo génnee mën nga leen a xas kon dineen la bàyyi nga ñibbi waaye ci ñaari mm-hmm. condition bu ci njëkk neel baal ma àq ma ne baal leen ma dix mille fois ñaareel ba contrôle judiciaire leen lay bàyyi ak liberté provisoire bis boo ne xoon ñu indiwaat la ci kaso bi loolu jaay doole la waaye du dëgg ci biir loolu nag bi ma demee ci Mame maxtar ma ne ko man de dama war di signé ji mu ne ma bul dem dinaa wax ak juge bi te dara du xew billaahi wallaahi tallaahi juge baa ngi dund Mamadou Seck la deuxième cabinet justice Sénégal a ngi fii na journaliste yi ak ñi ragal yàlla dem wër duñ mus a gis fu ma signé amul benn vendredi bu ma signé ci laa dem Makka ci laa dem Amérique ci laa dem Maroc ziyaare ji Cheikhu Tidiane ci laa dem Mauritanie ziyaare ji Cheikh Mamadou Hafiz ca Vanni di ci wër musuma dem nekk ci dëkk bi di dem Pape Diouf di dem Waly man maay kan ba justice may ma liberté provisoire ak contrôle judiciaire dew ma signé ji te kenn woowu ma Mame Makhtar Gueye mooy kan ba ku wax xam-xam mu sañ laa tëj ci kaso gi ba pare ñu bàyyi la ci contrôle judiciaire ak liberté provisoire mu ne la bul signé ji signé ji wata dara xewul te même bi ma defaatee li ma def moom Makhtar Gueye moo toogaat ci askan wi rusul ragalul amul lu muy jomb mu ne kii dafa nekkoon contrôle judiciaire ak liberté provisoire ñu ngi wax juge bi na ko jàppaat gis nga ñàkk loi boobu am ci réew mi nga xam ne ku nekk ci gouvernement bi soo ragalee yàlla xam nga ne réew mi justice bi tëddeewul njaaxanaay ku nekk ci opposition bi boo ragalee yàlla xam nga ne justice bi tëddeewul njaaxaanaay ñàkk njaaxaanaay boobu nag moo tax biñ ma bëggee jaayaat doole gàddaayu ma tuxuwuma damaa daw dama daw wuti doole ba am ko ñëwaat ci réew mi ñëwaat naa ci réew mi. d'accord ma wax la dara ab la d'accord d'accord da nga daw. ñëwaat naa ci réew mi waaye képp koo xam ne danga gëm yàlla te ragal ko yëg ne jaam bii. seytaane mën na làmmiñam ba mu wax lu mu warta wax ci alquran ak ci jëmm yàlla ju sell ji jaam boobu maa ngi tuubal yàlla di ko jéggal waaye muy jamra di maxtar gay kanamam gi ni poxotaan maxtaar saarak yu gàttam yi mu yor góor guy ak jigéen ak a xaste ci turu lislaam ak mboolem organisation bu nekkoon ci ginnaaw jamra ak koo mën a doon ak ku la mën a jiite su fekkee sa baay moo la jur laa wax doo sa doomi xariti baay wala ci farataak sunna leen la jur xaraf nga ngay góor loo ngànkoon na dagg jéggaluwuma la baaluwuma la retiréwuma benn propos fa ma jaaroon démb ak yow fa laa jaar ak yow tey ndax li nga yaakaaroon ba may yóbbu kaso bi ma ñëwaatee yaakaar naa lu ko raw ndax man nandita laa du ma nekk Amérique am jàmm ñëw Sénégal te amu fu may taxaw li ma yaakaar nag moo gën a diis lañ yaakaar d'accord kon yow sa ñëw bi su ma la su su ma la déggee ñëwoo pour jéggalu pour nekkaat sa liggéey da nga ñëw pour dëggal sa bopp. dama ñëw pour ñetti mbir. Mm-hmm. imbécile ak doomaraam yi ne woon duma ñëw ma fen loo leen ne ñëw naa ci réew mi lu ngeen mën def leen muy benn. ñaareel ba ziyaara ji raw Rawdu Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountakha dama leen nam ñetteel ba taxawaalu ci réew mi rek la sumay bagage benn une semaine laa fi def génnaat dem suma yoon. ndax kat dew ma Amérique pour signer asile six mois yi jeex na mat na réglé naa lu may réglé ñëw naa man ñëw ma pour liggéey ñëw ma pour dëkk ndax dëkkuma fi man Gambie laa dëkk intérêt moo ma fi indiwoon ñëw ma Sénégal pour liggéey dama ñëw pour wan doomaraam yeeg imbécile yi ne yéen ñu noonu du ma dugg dugg naa lan ngeen ci mën mhm. defanteeg ñoom waaye nag once again ma répété waat ko képp ku gëm yàlla te muy dëgg amoo mbañeel ci man amoo intérêt ci dundal benn organisation yàlla képp la ñor ni ma waxoon démb réccu naa ko maa ngi jégalu waaye ñi nga xam ne nag dañ doon defanteek ak man man ñooñu laay defanteel ku ci gis sa bopp dugg ci ku mën wirde ku mën sunguf ku am luwaa ku am dooleel defal jégaluwuma mm-hmm. ñooñu de catégorie googu dama préciser baaluwuma leen lu waaye deful rek du ci danga koo mënul d'accord d' accord am na solo mën nañ ci woon a bañ ñëw nag mu nekkoon euh, loo xam ne nii tamit faaw ñu waxtaan dem dem dem bi ak ñëw bi ak yu demee noonu Ameth ma ñëw ci actualité parce que yaakaar naa yaa ngi woon Amérique mais yaakaar naa si daray actualité ëmp la rawatina nga ñëw ci réew mi nag tombeek actualité boo xamante ne nii mu nekk coow lu am ci diggante mami Cobra ak ki nga xamante ni moo di Pendo live ba jógee woon ci Adamo ak Soko euh, damay njëkkee foofu noonu bala maa ñëw ci yeneen dossiers yi tey bu demee ba Sénégal ñu gis jigéen. bu njëkkoon dañ naan gis jigéen euh, daawul wax daan naa dégg mag ñi naan inna ankaral aswaati la sawtul xamir jigéen kàddam dañ ko daan odd mais boo demee ba léegi <laughs> vie privée dégg arab aussi <laughs> ba ne ko da dégg arab yaay yaay Sénégal de ko mokkal benn aaya oustaz ba jigéen taxaw tey bu ñu demee ba jigéen taxaw ci penc mi di wax euh, en tant que yow euh, xaafisul quran en tant que aussi tamit borom xam-xam en tant que chroniqueur naka nga jàngatee loolu xaw ma ci benn jàngata c'est normal parce que réew mu mën a jëw ba jël jëw tuddee ko kaa nga gis ko mën a am jot dem ci live toog fa trois de temps jàngul nu ñuy defaree lislaamam jàngul lu koy indil xaalis waaye déglu su paree am opportunité partager jëw réew moom bu fa ay jigéen seen mm-hmm. audio fuité dafa normal rek bu fekkoon ne li ñuy wax ne réewum mm-hmm. valeur la am teraanga ak orma wallahi lazim coow lii du jóg ndax jëw nit nit Sénégal ba jëw ko bisi du jëm Uh-huh. nit jëw na ba toog ak doomi jàmbur di jëw ndeyam nit jëw na ba toog ak taalibe jàmbur di jëw sëriñam donc jëw du lu bees xanaa ñu doon hypocrite rek mel ni lu bees la waaye dara beesu fi wax ak nit mu enregistré la te gis nga képp koo nekkal ci jàmm mu enregistré la rek mbëggeel amu fa te xam na ne musiba dina am wóolu te amu fa ndax bu la wóoloon du ko enregistré d' accord mais Ahmed foofu dama lay dog parce que man daan naa gis ay enregistrante ay waxante mais bii dafa dem ba dugg ci ay vie privée sama sëy bi sa maam moo doon takk dem ba léegi xawante sutura ñu koy def ci TikTok bi est-ce que loolu c'est normal aussi. non li normalul mooy pourquoi nit ñi jox ko attention bi maam man looloo normalul mais ay jigéen ñu waxante lu ñaaw yàgg na fa lu du lu bees buñ mel ni ñoom Mamy Cobra ak maam Ndiaye Savon Pendo ñoo bon déedéet lii ñun nii leen mel lii mooy suñ société buñ nekkul di tëddante. Mhm. ñu ngi fenal nit buñ sosut ñu ngi jëw. buñ jëwut ñu ngi tappale seen normal ci ñun gis nga bani israila mhm. seen yonent yu bëri yi ñuy bàkkoo mhm. du dara lu mooy mbon guñ bon yàlla bëgg leen rek Sénégal am neen mhm. Seydina Limaamu ak Seydina Insa ñu ñu doy neen pour àddina dëgg la ñu ngi biir Dakar fii yàlla indi fi cer na Nuuru Taal ak na Muntaxa Taal ñu ngi biir Dakar fii ñaari kuy Seexu Tijaan yoo xam ne si xale si yi dina leen bokk nga dem am Sëriñ Babacar Si alaaji abdul aziz si sëriñ mansuur si bal xaw mi Maodo yëpp benn tiwaawoon nga jàll tuuti dem Touba fekk fa sëriñ Touba njaboot ga ak maam Cerno mi ko noon sëriñ bi topp naa la ba jox la lépp lenn rek laa dese sëñ bi na ko lan la mu ne ko suma ngor moom duma la ko jox mu ne ko lu tax mu ne ngor gi laa mën a ànd ak yow nga dem Kaolack fekk fa alaaji Hamid Kan maam xalifa mu mag mi nga xam ne bi mu juddoo yonantoog Seexu Tijaan na ko for nga gis alaaji Ibrahima Niass Baye sa alaaji Omar Ndaw Al Farouq ñëpp ci benn Sénégal xam nga la lu tax Ablaye Mhm. suñ mbon gi moo tatta yées ñun dañuy bokkale yàlla ba mu normal ba nit su bokkale yàlla ñu ne la nivelo la xamoo fu muy waxee màndul ci waxi sëñ bi mhm. dañuy gis lu ne weng ne fang jamra bi ñuy criminaliser mhm. yàmbaa ñu ciy tëj suñuy jeunes seen avenir di yàqu ci kaso gi ana jigéen ñiy cagatu bu yàlla rek taxe ana sàngara umul xabaayis den koo tëb ndax seen intere nekku ci bu yàggul nii électoral bi ñu ñu yónni maam Maxtaar Gueye def ne ñii ay góor jigéen leen parce que toog na Wally la daan jàpp mm. kaañ bu Wally sañse ba mu rafet mu ne ko góor jigéen nga dafa am ay ay ay ay ay lobby yu nekk sa ginnaaw mais Wally yaayam mm. gaañu na am na lu ko doy mu ngi toog nekk ci boppam bës amul te organisation faa mu dund Cheikh Ahmed nekk fi ñeneen ñi intimider neen leen man bañ ragal mu ne ñi ñëw seet si wàllu électoral bi ay góor jigéen leen pourquoi le moo góor jigéen électoral mm. la ñëw seet si dañuy seet na xam-xamam màcc na ci wàllu élection bu ca màccee seulement mm-hmm. it's not important jullit la wala xéeféer la su fekkoon ne julli rek la ñu jël imaam yi ñu xool wàllu élection mais lu ne ak ku ko mën pourquoi Mame Matar Gueye defaat délégation tuddaat góor jigéen ndax su ko tudd du dund. Mm-hmm. ñii nekk fi ànd sàmm jikko yeeg aar daaraak ñoo ñu xamal lan mooy góor jigéen ñoo ko tudd suñ nopp yi xamal ñu seen couleur xamal ñu seen style parce que organisation bi noonu lay demee. ñi nga jàpp ne ñoo jub la ñuy jox agenda bi ñu jaay la ko yow na la gis nga zone ak nangam ak nangam. Mm-hmm. góor jigéen la ba nga xam ko yow li nga xam ci mm-hmm. góor jigéen léegi xamoo ko bi nga nekkee xale. te sa yaay yàlla na ko yàlla yërëm bu ñëwaatoon li nga ci xam-xamoo ko ku la ko xamal <laughs> Jamra ànd sàmm mm-hmm. ji yi dajaloo ne dañuy marché nga defar cent mille t-shirt t-shirt bu ne nga jaay ko deux mille ñaata la ci xaalis fu xaalis boobu jëm ci xeexum góor jigéen mm-hmm. ñu bëggee dugg assemblée nationale jël Macky Sall def ko kañ ne day taxawal góor jigéen bi Macky la taxawee fipp wax ne moom bëggul góor jigéen amuñ honnêteté taxaw ne dëgg dëgg lii leen yaakaaroon lii amul yàlla na ko yàlla sàmm dañoo rasu bi projet Sonko daanoo Pastef daanu déggatoo sàmm jikko yi ndax ay politiciens yu xiif àddina leen jaaree ko ci mbubbu diine man lii laa leen gënee lii laa leen rawee lii laa leen mënee waxal ma lu ne nag mais mbubboowuma diine waxal ma lu ne maa ngi jaay suma njaay mi di jël suma alal di toppatoo suma njaboot lu ma gëm ci diine jëfee ko wax ko su ko mënul bàyyi diine muy diine man ma doon ki ma doon mooy jullit bu sàggan d'accord d'accord mais mais mais mais ma ñëwaat ci coow li actuellement nii lan nga jàpp ni coow lii nii am ni mu nekk diggante eh, Mamy Cobra ak Pendo yan tànk lañ ci war a dox parce que yaakaar naa dialogue yemul ci ci ci ci politique ci politique bi donc wala ñeneen ak ñeneen ay jullit yu coowoo ba lu ne am ci ba ay demante yoon ñu ko ciy dégg am na tànk yoo xam ne aussi tamit war nañ ko cee dox. non non amul tànk buñ ci mën a dox nañ leen bàyyi ñu si seen bopp rek ba dem ci suma raddarnaaw asfala saafili ne nit ñoom am nañ fayda ku wax lu bon ñu seetaan la waaye nag du kuñ seetaan roy la. ku wax lu bon ñu seetaan la waaye mun nañ seetaan ba pare xeeb la ça dépend ci ñoom ñooy choisir da ah. mhm. mais amul lu ñuy régler ñoo enregistré woon ñoo àndoon ñoo demalante ñoo ñëwalante ñoo weerante ku mën seetaan ku mënut ba d'accord ku ci jug di régler looy régler amuloo leneen looy régler d'accord am na solo <laughs> cheikh bi na ma naa la borom Amérique <laughs> ma ñëw nag ci troisième partie bi mhm. ma ñëw ci trois mais yow fi nga ñëwee ci réew mi nag maa xam ni tamit man yow xaw ma nitu coow xaw ma yow nitu fitna nga man xaw ma yow luy sa problème quoi. <laughs> lu tax nga wax loolu. à chaque fois yow. Mhm. Mhm. à chaque fois yow bu coow amee rek da ngay jékki-jékki gis Ahmed tey xoolal fi nga ñëwee. coowal ñoom Mamy Cobra Pendo nga jékki-jékki tamit déggaat Macky Sall changé na gouvernement bi en tant que chroniqueur yow daa mel ni Ba moo nekkoon sa sa candidat sax sa waay. Ablaye. waaw. Macky Sall génie politique la ndaxte ku yàlla dimbale dina yab ku ko ku ku ko mën te Macky Sall ndimbalal sunu borom la am ci nguuram gi fa mu jógee fa ko yàlla falee ba tey mu liggéey bay waaj pare am ñoo xam ne soit di saa soppee leen wër ko bëggoon koo yàqal loo xam ne gàcce gënu ko rëy ci àddina wala ci histoire Sénégal ndax kat élection bu présidentielle musuñ koo fomm du ci Senghor du ci Abdou Diouf du ci lay Wade te Abdou Diouf yoonam bu mujj xam na ne bu demee daanu waaye la daloon Maba Jaxu Ba la nangu mu dal ko boo demee dee mu dem dee Abdoulaye Wade xamoon na ne baaxul waaye dafa dem vingt et une mu yëkkati téléphone woo Macky Sall na ko yaa ma gañe loolu teraanga boobu leen war a xañ Macky la defoon complot boo xam ne seen bëgg-bëgg mooy Amadou Ba bu mu nekk président bu mu nekk premier ministre neen ko folli bu mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar waaye bu mu ca yem ko tëj ci kaso gi ci manœuvre boobu noonu xamuñ kan mooy jiitu waaye ñu bëggoon Macky Sall def ci boppi nguur gi ñu indil ko ay rapport indil ko ay mbir ba mu gëm ko waaye li ma la waxoon nag ku yàlla dimbale bu demee bay fakkastalu yàllaa koy téyel boppam bokk na ci liñ ko tegal mooy xam nga mbir mi du sénégalais yi ak Amadou Ba dafa am ay kàngam yu nekk Benno Bokk Yaakaar ñu am doole am xam nguur bu baax am mbooloo biir Benno Bokk Yaakaar am fa ndomboy tànk am fa doole ba pare bëgguñ amadu Ba ñoo ñooñu dañu def benn coalition dugal ci bun Boun Abdallah Dionne dugal ci ay opposants ba ci ay ministre xam nga mari Thérèse Faye taxaw na fi di critiquer amadu Ba te mu ngi ci gouvernement bi te Amadou Ba mooy kilifa am na ay ministre yu doon taxaw di yootu di yuuxul Amadou Ba di ko farle mooy mu gi de noppi mel ni ndox mu galaase déggatoo leen li leen noppiloo mu nga ca léegi nag biñ tegalee rapport yooyu président de la république bokk na ci ñaari député yu ñuy utiliser muy Abdou Mbow ak Farba Ngom ne neen ubbi commission enquête ci assemblée national biñ demee ba xam ne loolu mënta nekk ci leen wutaat pexe indi ay israélien ay nigérien ay indien ngir ñu defar ay xam nga tey technologie yem na ci boo bindoon tey bu la neexoon Obama wax ko bu la neexoon keneen wax ko ñu jël baatu Amadou Ba méngale koog ñaari ñaari euh, euh, euh, juge conseil constitutionnel mooy ñaari Cheikh Tidiane ak Cheikh Koulibaly wane ne den doon waxtaan ak benn milliardaire nigérien jël ci moom alal ngir tuumal Amadou Ba corruption loolu moo taxoon fan yi la ngeen dégg ñu ne Amadou Ba day dem kaso corruption yàqu na yàqu na mais pexe yi yépp yàlla daf ko leeral toj ko ba président jëlaat RTS def discours taxawaat élection yi indiwaat dialogue national bokk na ca lañ ko doon wax sax mooy narooy ko mel ni Erdogan narooy ko mel ni Paul Kagame ku mel ni Alassane Ouattara na toogaat Macky Sall nag bi loolu yépp amee te ñu waroon a tuumal Cheikh Ndiaye ak Cheikh Koulibaly bul fàtte ne complot bi yàgg na ndax ba Bassirou Gueye procureur bi nga xam ne moo jàppoon Sonko jàppoon xalifa Sall jàppoon Karim Wade nga xam ne jombul jàpp kenn moom leen jël yóbbu ko OFNAC ñenn ñoo ko doon campagneel bañ fal ko OFNAC tabul bul fàtte commencement dossier Adji Sarr moom la woon ñu teg ko fa ngir rapport bi su demee OFNAC mu mën cee def lam cee ngir Amadou Ba dugg kaso lii lépp ay pexe yu ñu laloon la waaye yàlla moo dimbale Macky Sall mu xam dëgg ca waxtu ba mu ko war a xam. mais mais xam nga xam nga maanaam ñun sénégalais ban problème la ñu am ah? mhm. est-ce que nekkul tey maanaam maanaam maanaam lii day nekk genre jeu parce que ñun comprendre nuñ ko Amadou Ba ni mel Macky Sall jël ko wóolu ko teg ko ci côté am suba ñu xëy ñu ne ah, ah Macky na ko maanaam ñu bari naan est-ce que lii nekkul benn genre jeu. non wala boo xam ne dañ koy teg nii rek. xam nga diggante Macky Sall ak amadu Ba dafa am baatin bu ci yàlla def boo ko fàttalikoo ci micro bii laa téye woon ma ne la buñ eggee ca tànnukaay ba duñ tànn ku mooy Amadou Ba ci yow laa ko waxee woon. moom leen tànn yàlla dafay def baatin bu leer boo xam ne pexe yeggu ci. gis nga Ousmane Sonko amoon na biddiwu nguur waaye amul wërsëgi nguur ñi xam biddiw yépp astronomie ne mooy falu mooy falu mooy falu ma ne leen du musa falu ci réew mi teguma ko woon ci bañ ko man awma lu may bañee Sonko mhm. nguur ci senegal dangay am biddiw bi am wërsëg bi am mbooloo mi mhm. te gis nga ku mel ni Lat Diop du doon président réew mi de waaye mu ngeeg biddiw boo xam ne ku mu àndal nga fal Hmm. te sëriñ Muntaxa deegul te ku gënul ci Sénégal mënoo falu ci kanamam ñaan gum ñaanoon la ca at ya yàlla nangu ko dafa am Sénégal baatin lay doxee amal xam-xam bi am éloquence bi am personnalité boo ñëwee doo falu hmm. bu ñu la sampul doo falu Amadou Ba bi nit ñi di régler maire ak mairie moom mu ngi lijjanti num faloo boobu wàccul sax ci langue politique sëriñ Abdou Hakim Mbacke rek sëñ Muntaxa moo ko njëkk wax di nga falu mhm. Cheikh Yérim Seck mat na ma seede imaam Cheikh imaamu dina bàyyi mu ne Amadou Ba daf ko lebal teranga boo xam ne mënul ko koo fay mu ngeeg loo xam ne bàyyi ña sa ko waxoon ne ku sangu falu ku ko sangoo falu moom la sangoon Kwame Nkrumah Jawara daf ko yéene amadu Ba te yàlla tax bind na ko ñeenti at mënu koo gis. Mhm. ma toog kër sëriñ boobu ak Cheikh Yérim Seck wax ko ko mu ne ma suma xarit la. bi muy lebal sëñ Muntaxa teraanga boobu sëñ Muntaxa xoolut xalifa Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. waaye du loolu rek maturité gi ci moom ak mat gi moom rek mooy the right candidate pour dajale Sénégal ndax Sénégal ci voie de développement fi mu toll dafa soxla est-ce que xam nga ne Sénégal catastrophe weesuwul ñu fal Jomaay waaye moo gën a bon ci Sonko falu jomaay moo gën a yées ci Sonko ndax ki nga jiite yar ko ci politique bu nekkee président xoolal ki nga jiite yar ko nga naan ko defal muy def bàyyil mu bàyyi kooku bu xasee nekk président sa ndoom la kooku bu xasee nekk président yow yaay doomam di su boobaa Sonko day dellu ginnaaw ban ba yegg ci suma dada daa asfala saflina koo daan joxoñ muy def mu di la déglu mu nga dem ba nekk boosam Macky Sall la nekkatoon njiit ci Ablaye Wade mais ba mu faloo ñëpp doomam leen mais est-ce que tey waxee par rapport ak ñeen noonu la demee parce que jomaay tamit. non li ma lay wax foog nga déglu ko xam-xam laa la wax dama ne la jomaay booyi sonko la bu tekkee dara ci politique sonkoo tax bu ñu ko xamee sonkoo tax buñ ko bëggee sonkoo tax bu faloo nekk président de la république du Sénégal sonko doomu jomaay lay doon neex na xare jomaay mooy kiy wax sonko fu muy xool ak nu muy joxoñe te bu ko doonee menace ci moom mu teg ko ci kaso bi nguur amul ngor amul jom te ñaari kilifa mënta nekk ci gouvernement murid yi lu mu rëy rëy benn xalifa lay am tijaaniya bi amul benn xalifa foo dem ku ne man ku ne damay xalifa coow li na ko ñii di wasifaani ñii di xadaraani dama la bëgg a wan ne li gën ci sonko billaahi wal kitaab bi li gën ci moom lu bari mënuma koo wax mooy Amadou Ba képp ku bëgg sonko te muy dëgg ci yow falal bu ëllëgee di nga ne Cheikh waxoon na ko ma wax la ne diggante Macky ak Ba bi muy bi mu koy fal premier ministre nga foogoon ne moom la neex neexu ko bi mu koy fal premier ministre Amadou Ba xamul ne moom la ñuy fal da daan toog këram teglante tànkam di ataaya ñaari nit lay gis wéet lool. Macky la dugg fu nekk fu mu dem ñu wan ko ne ki la war a donn en tant que premier ministre amadu Ba la mm-hmm. bi mu koy tànn jamono boobu jamono bu métti la ku nekk di campagne jëmale sa mbir ndax Aly Ngouille Ndiaye ki topp ci moom booy Amadou Ba la day yëg menace foog ne bu amadu faloo mu ñàkk teraanga Eh, borom lomotif yu bari yi kii maam booy jaawo moom it ki topp ci moom booy Amadou Ba la mu yëg menace ñoom ñëpp seen intérêt dem contre Amadou Ba te ñu bëgg xiima ñu bëgg mu jox leen joxul leen ko ndax dafa am liggéey bu ko doy muy premier ministre du Sénégal mu jàpp ne benn njiit leen am président Macky Sall bu joxoñee ñëpp war a topp ku ne di fippu neexalut kenn mu toog rek ab Ablaye mbir soo ko moomee doo ko xaccoo te doo ci yàqu doo ci yàq sa der doo ca ñuy dem. mu métti lool ñii bun Abdallah Dionne ñii na maam Diop ñii na nangam ñi na nangam ba président fal ko. ñu dem ba nga xam ne nii ca baatin ku xool xam ne Amadou Ba bu demoon élection maanaam balaa ñuy ndékki moom 17 pour cent sa du ko am mënta gañe réew mi ñoom complot yi moo tax yàlla suy defar day mel ni koy yàq ñu doon tëgg pour Macky Sall la fomm élection ngir ñu génnee Amadou Ba nekk moo gën ci moom. ab lay man benn yoon laa mësa wax ci internet génne kaamil mooy ndaw sa nekkoon Gàmbi tudd Tuufa Jàllo ba mu tuumaalee Yaya Jammeh ne Yaya Jammeh moo ko violé ma yëkkati suma xale ma bind ministre de la justice na ko man Cheikh Ahmed Cissé di boroom xam-xam dëkk ci réew mi lii di jóg yàlla am na lu ma ci xamal te noppi waruma jigéen dafa foor ba buñ ko violé kenn waru koo weddi waaye njiitu réew mu fi nekkoon jiite réew mi ñaar fukki at ak ñaar waruñ koo tuumaal viol ndax mën na yàq lu bari ci réew mi mën na yee fitna hmm. ma di la seedeel na yàlla xamal na ma ne viol bii ndaw si wax du dëgg ma bëgg nag ngeen jàpp ma man tëj ma ci kaso gi indi ndaw si ma teg suma loxo ci kaamili alquran mu teg loxoom ci kaamil ñun ñaar ñépp ñu waat ne bu fekkee ne man li may wax fen la yàlla mi moom kaamil yàlla na jël suma bakkan fii ñetti fan bu fekkee moom li muy wax fen la yal na yàlla jël kanam fileeg ñetti fan ndax su ëllëgee bu jigéen taxawete ne den ko viole kenn du ko weddi waaye bu ëllëgee boroom xam-xam buy ñëw di taxaw di waatal yàlla nga wax lu leer ma toog ñetti fan ministre bi répondre ma ma jàpp ba set dugg ci jumaa yi Cheikh Omar Touré julli ñaari ràkka yëkkati suma loxo teg ci kaamil bi ne billaahi wallaahi tallaahi yaaya jàmme réebut viol réebut tuufaa jàll su dee réeb na ko mhm. yal na yàlla jël suma bakkan balaa ñetti fan su dee réebut ko yal na yàlla leeral àddina yépp ne du dëgg keroog la coow loolu jeex bi te ba tey déggaatoo ko xam nga lii ma téye kaamil la du yàng ngi koy gisal sa bopp maa ngi wax billaahi wallaahi tallaahi Amadou Ba ak Macky Sall yàlla boole na leen boole boo xam ne bu Amadou Ba duggee ci kaso Macky mooy premier président buy dugg kaso maa ngi wax billaahi wallaahi tallaahi jamono bii kenn gën te jekk ci doon président ku mooy Amadou Ba te buñ demee élection premier tour lay jàll hmm. ñi ko doon complot dineen weeru te dineen nekk ci jafe-jafe ba rëccu ko te képp ko am yóbbante buy dem pale jox ko Amadou Ba wax jii ma wax nag su fekkee suma bakkan képp laa ko teg ci lu ma neex rek wala su fekkee déggante na ak Amadou Ba téléphone wala jabaram ma woo ko mu jël wala doomam wala den ma jox benn gërëm ba tax ma yab yàlla ba yëkkati kaamil yàlla su dee dëgg rekk la moom buur la te moo yónni yonantu sallallahu alayhi wa ci dëgg jox ko kaamil bu mat bii nga xam ne kenn du yokk kenn du wàññi yàlla na yàlla jël suma bakkan balaa ñetti fan mm-hmm. man du ma waxantu am naa xel am naa pexe su ma neexoon dugg ci génn ni nit ñi di def ba lekk dara waaye réew boo ci bokkee am loo xam da nga war a jël certain engagement Amadou Ba moo gën ci Sénégal moo gën ci réew mi moo gën ci développement moo gën ci Sonko ñàkk ko fal dafay delloo réew mi ginnaaw juróom fukki at fal ko moo gën ci ñëpp te képp ku xam baatin waxuma kuy wax baatin waxuma ku naan ñu ne képp ku xam xam nga li ma wax mm-hmm. Ibou Ba doomi Amadou Ba woo naa ko ñetti yoon jëlul téléphone ngir am yóbbante bu ma ko wax mu jox ko baayam jabaru Amadou Ba bili ba su ma ko woowee du jël téléphone bi kon alal motivé wut ma lekk motivé wut ma yàgg naa dóori pexe ba am xaalis te yëkkatiwuma kaamil waat di wax naa ay vidéo ba convaincre ne bii mooy ñaari yoon ci àddina ma yëkkati kaamil ci vidéo ndax réew mi toll foofu ci danger ci njëriñ ci développement mm-hmm. buñ defeewul nii rek luy yàqu dootuñ ko mën a defar ba àdduna tukki Ablaye Sénégal ku wax ñu weddi waaye man maa ngi xaar ku may weddi bul indi discours wax jàppal ba set yëkkati kaamile alquran waat ci yàlla nga woo yàlla ci qudratoom ak jalaaliyatoom oo muhammad ci xaqiqatoom waat ci yàlla ñu toog seetaan yàlla mooy kii àtte nekkuma ci li nit ñi ne mm-hmm. waxantuwuma Amérique gi ma jógee mm-hmm. képp ku ma mus a seetal nga foog ne nit moo ma xam wax ma la ñi ma seetal ñu may dégg waaye lii du xam-xamu sax seet ma répété li ma wax dama ne Macky Sall yàlla daf ko booleeg amadu boole boo xam ne digg ginnaaw yi Macky Sall Amadou Ba leen ci bind bu jógee kenn mënu koo teree tëdd ñii lali pexe ci moom képp ku bëggul at yi ñëw sa nguur nga jotee nguur mu métti ci yow génnal ci li nga nekk te bu kenn yàlla yónni wutoon ku ko wax nag Aïcha Cheikh bi kontaan naa wax dëgg yàlla xam naa nag dangaa jóge voyage sonn war a recevoir nit ñi parce que Cheikh bi nag ñëpp war a daboon aussi tamit. xam nga bi may dem damaa jaayoon appartement beeg yëpp waaye bi ma ñëwaatee maa ngi fii Nord Foire taalibe naan tey neen ñëw yeesal seen njëbbal su ko defee ñu waajal koor gi xam nga people 221 fii lay def waxtaanu naan tey ci koor gi. waaw waxtaanu nandite waxtaanu ci koor. fii laa koy defee people 221. ay ayca mu ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun du ñu suivre ñu amoon ci dalal leen daral sunu Cheikh di wax soyez les bienvenus dalal ak jàmm kooru jàmm di leen jaajëfal di leen jox dig daja suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.